kon maa dellusiwaat rek euh, diwoo doomi njaareem yi nga xam ne ñoo ngi ci diaspora bi ci province ak ñëpp di leen woo di leen wax ne li nga xam ne moom lañ sumboon muy làmp yi yàlla dogal na passé nañ ko ñoo ngi jublu it ca mbalit mi kon dañoo war a ñëw toog waxtaan li nga xam ne noonu la ñuy doxalee mbalit mi kon ñoo ngi woo ñëpp lëndi ci kàttanu yàlla ñoo ngi lay ni woo ci setep bi su ngeen xoolee direction bi ci suuf vidéo bi di ngeen gis direction bi kon ñoo ngi woo ñëpp daal ngeen ñëw wuyu suñu ñu ànd waxtaan xool ni nga xam ne noonu la ñuy def ba jëlee fa mbalit ma ca njaareem. waa sumb yi bari na sumb yi bari na ndax comme ni ko suñu ordinateur waxee mbay mi ngi fi transport mi ngi fi ak leneen ak leneen mais lépp loo gis rek ndànk la comme que yàlla dogal na ñoo ngi xoolal fi ñu dooree 260 lampes lañ doore safar gi mille làmp lañ def. te it na la leer na mbalit am caaxaan yëkkati jëlewu ko fa te ku ci ne ku dëkk njaarim rek gis nga mbalit ma ca njaareem barki démb saa nebbe mi ngi ko doon vidéo di ko envoyé gis nañ mbalit ma ca njaareem kooku caaxaan jóge fa te ci kàttanu yàlla am nañ yéen a jële ko fa tey rafet nañ ci njort ne dinañ ko fa jëlee suñ jugee ca mbalit ma nag dinañ toogaat waxtaanaat songaat leneen ndax par benn benn la lundi incha allah ñoo ngi koy def 8 heures 8 heures et demi plus tard 9 na fa fekk ñëpp ndax comme que jot bariwul te it ku ci ne da war a xëy liggéeyi kon 9 nañu fa fekk su ko defee ñu tënk li ñuy tënk ku ci ne delluwaat ci tool yi. waa direction bi ñu ngi koy def ci suuf vidéo bi képp ku gis vidéo bi rek boo xoolee ci suuf di gis.